kon bu ma la déggee mooy Pastef dañoo engagé nos combat contre le système alors qu'ils ne maîtrisent pas totalement le système. certo loolu dafa wér dafa wér moo tax yii di leen daal ça permet tamit dañoo bàyyi ay alliés yu bëri ginnaaw. loolu toujours dama koy wax toujours dama koy wax ñii ñuy wooyee les révolutionnaires les panafricanistes les activistes il y a des gens qui sont là et qui comprennent carrément le système Ils ne leen pas ginnaaw nga jël ay ñoo xam le daanaka parti politique classique qui ont leen formé euh, ça peut mener à ça aussi hein. ils ont perdu beaucoup d'alliés hein. un moment donné on, avait comme l'impression que ni Pastef dafa fait un antagonisme avec les panafricanistes les souverainistes etc. alors que normalement nous waroon être ay alliés ils ñoo être euh, ànd ci ci ci parce que quoi qu'on puisse dire Pastef un antagonisme endossé li nga xam ne revendication yi nga xam ne souverainiste donc c'était plus logique que nous, nous nga xam ne ñu au lieu de ñu dem di recycler les nga ay acteurs politiques qui, qui sont des parties intégrantes du, système. Et malheureusement, on a vu ce, ce, ce, ce que ça, ça a créé. lu neex nga ma nga ma nga ma quoi parce que loolu man dama ko yàgg a wax ndaxte tey déclenché la lutte souveraine ou le souverainiste bi nga xam ne mi Sénégal ak Afrique ñi ko porté les panafricanistes les activistes et autres parce que Ousmane Sonko à un moment boo xam ay nit yu ci bi wax non au Français, non aux APE suñu alal dañ ko jël ressources naturelles dañ jël utiliser au moins contrat yi renégocier au moins 50% pour cent ñu ko am comme ni xew Niger tout de suite ndaxte bu fekkoonte français ni ñu ne ah configuration bi changé na nañu waxtaanal ak africain yi au moins ressources naturelles ñu def ko 50-50 au moins alal bu fay génn ñoom ñu mën ko jëriñoo mais dafay am foo xam ne boo fa tolloo boo delul ginnaaw nga ne ah répression bi ëpp na mënuma am uranium bi yëpp Niger am comme mu ciy am 10 pour cent man may am 90 pour cent wala ñun ñi am 90 pour cent il faut ñu waxtaanaat ba affaire yooyu xew ba gars yi génnee ci mbedd bi 30 personnes au début voilà 30 40 personnes maximum 100 personnes policiers mais si on a ngi message on peut nommer beaucoup de gens Guy marie les Kémi Seba les Badji beaucoup de gens des jeunes étudiants qui étaient avec nous à ce moment beaucoup les hein. léegi euh, combat Ousmane ba mu dafa exploser motax mom tam suñu allié direct la mu xam ko mu ñak ko xam y a des gens yo xamni dañuy ñëw dox ci digënté bi parce que gis nañ ne am aura mais du ñom ñokoy dimbalé pour mu aller vers cette souveraineté là